asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk Africa Channel tey nag ñoo ngi fii Kër Mbaye Fall Tall Diaz ñu ñëwoon nag tey mu nekk seen deuxième numéro seen émission toog teg tey nag ñu indi fii thème bi nga xam ne mooy xale jigéen yi nga xam ne dañoo matérialiste tey seen relation yooyu yëpp jàpp nañ ne tey jii intérêt lañ ciy dugal wala xaalis moo koy def léegi nag bu ko defee ñu jéem a bàyyi gars yi ñu nuyoo ñu laaj leen ñoom tamit lan lañ xam ci jigéen ñi nga xam ne dañoo matérialiste <laughs> ci loo nekk. maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. tur bi. man Sofia laa tudd. waaw Sofia comme que ni comme ni ma ko njëkk a waxee rek ci ndorteel mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo matérialiser yëpp intérêt lañ koy defee ana lan nga ci xam ak loo ma a wax. jigéen ñi moom matérialisme fépp la sax laay wax parce que bari na bari goo xamante ne ak fi réew mi toll nii daanaka mooy priorité. mais léegi foo teg ne fépp la fépp foo ko teg. ah damaa xam ne jigéen laa te xamante nañ suñu biir. waa kay maanaam ci ban côté matérialisme bi ci ban côté la ak lan moo ko waral. ci lépp bëgg xaalis intérêt fu intérêt amul doo fa nekk di koy jigéen yaa ma ko gën a xam yow mi jigéen. léegi yéen Baye Fall ana loo ngis gis. waaw man de loolu moom am mën naa see wax lu bari parce que mën naa ne moom man moom ñoom ñëpp ñoo si bokk yam man jigéen ñi ñoom ñëpp laa jox fóot ñoom ñëpp la parce que tey jii nii li ñu li ñu jiite seen àdduna moo leen sonal quoi dañ naan fu dara nekkul duñ fa def dara tamit. àdduna tamit yàlla moo ko moom am na si loo xamante ni ko góor yàlla bi tamit da sante yàlla parce que tamit nit du may boppam nit bu doon may boppam mu tamit parfois nga ñëw daal nit koo xamante da ngay nekk ak moom ko wax ko si soxla mais du gis loolu moom mu ngi xool intérêt. mais est man mën naa jàpp ne pour l'instant ni ñu koy waxee mode la quoi booy jigéen ñëpp la ñëpp la amul si kii na intérêt bu muy xool si yow bu ko mënta mu ngi wëri xanaa kay amaana dañ koy dund mais tamit ñun moom chaque jour rek comme ñun ay góor yàlla lañ te tamit ñun ñoo yeyoo tànn te tamit koy tànn bu ne da ngay tànn wër rek wër moom bés dina jot xëy na nga dajante bi nga xamante ne moo gën si yam mën naa ne léegi modu la te ñëpp ñoo yam bu ñu nekk am gisuñu fa seen intérêt duñ fa toog dañuy dem wëri ji leneen mën naa laaj a yam parce que loolu laa gis lu ma gis ak wax non non yow mën nga ko dund ak benn jigéen mu wan la ko mais bul ne monde entier noonu lañ mel bul ne monde xale jigéen yëpp noonu lañ mel parce que man mën naa jug ma taxaw ma ne carrément man melu ma noonu kii mën a jug ne melul noonu keneen ak keneen ne melul noonu boo ne xale jigéen yi day mel ni yow da ngaa war monde bi te waroo ko man dama see dund loo xamante ni ñoom ñëpp tey jii ni mën naa la wax ne loolu lañ mel non man ànduma ak yow parce que man yow soxna si yow soxna si yow buy wax loolu xam naa sa jikko baax yow loolu ngay dund yow loolu mooy sa àdduna yow loo ma xamal yow loo ma xamal damaa mës a fekk yow wala man dama laa mës a baraan wala lan loo ma xamal yow intérêt nga may toppee intérêt sama ñàkkat gi moo tax moo tax ni nga gën a mën yow intérêt ngay toppee man lii daal la xamal. yow li ma li ma xamal bari na su ma la ko xamee. booy loolu moom jéego ma jarul sax di sonn li ma la wax rek ñoom ñëpp ñoo si yem xale jigéen ñëpp a yem amu si kii si kaa modu la wuy ma waaw yow li nga wax dinaa la ci tontu bu na ñëpp yem ndax règle boo gis am na exception du dëgg parce que ku nekk ak sa jikko ñëpp mën nañoo yem yaa ngi dégg li am ci jigéen ñi moo am ci góor ñi kon bu leen ko jël rek xam nga classé ñu ko ñun kese non man li ne ci yéen moo ëpp man li ma gis man li ma gis laa wax man li ma gis man li ma gis laa wax xoolee li ci yéen li ma gis mooy xale yi jigéen ñi fi mu toll bëggatuñu kenn tayal yéen tay ji yéen bëggatoo leen kenn tayal mel yéen a tax yéen a tax ni mu mel ko dëgg neexul non bu ngeen xoolee ci seen bopp rek yéen jigéen nu mu mel yéen a tax mu mel ko sowaa doguma la duma ne ñëpp koy dund mais xale yi jigéen ñi léegi dañoo am feebaru ñaaka doylu feebaru ñaaka doylu moo nekk seen xol yi loolu moo leen sonal yaa ngi dégg du ma ne ñëpp la nag mais bu dee cent 99 cent yëpp loolu la ñuy ngir lan sama morom am naa lii dama ko war a am diw am na lii dama ko war a am te yàlla sunu borom moo bind te yamalewul barki Serigne Touba xale jigéen ñi daal soo bëggee dégg-dégg doylu wuñu mais Ibo loolu bu wax ñëpp de nag ku nekk option bu wax loolu. non looloo am déedéet rakk lool am bañ sëñ Fallou looloo am. doo ko nangu de bu dugg si moom léegi faute du si jigéen ñi kese. non li ma la wax noonu. billaahi rax tamit lu xam nga lu ngeen dund ak léegi jigéen ñi. Ah. passe temps duggatoo ah, ah. jekk na forme wala mën na sañse. mais lépp ci yéen na nooy duggee ci moom da lay téye comme comme rakam mais boo ñëwee boo ko imposé leneen li loolu la lay imposé moom loolu lay dund ak yow yéen jigéen yéen ñëpp a yem. yéen ñëpp mais tamit góor ñi da ngeen da ngeen ni mbaram du baax waaw parce que yéen tamit da ngeen toppee jigéen ba intra jigéen ba am xaalis yooyu ngeen topp ak yéen yow mbaraan mo yow mbaraan yow mbaraan mo yow mbaraan mo teul lay facturé yéen ngeen mbaraan mu neex maa bañ googu góor góor guy dugg ci jigéen di yaakaar ci moom maa bañ googu góor billaahi <laughs> lu garaaw laa lay tegal nii. mais yow diiroo diiroo koo koo yemale mbagg. waaw waaw tey bu ma xamee ne man sama doole fi la toll da ànd ak koo xam ne mën naa doylu ci loolu mais pas ma xam ne man comme exemple bas mi dawal dawalkatu kalandoo la dawalkatu kalandoo la cent francs dong la yor lu mu bu xëyee lu mu yor ngoon gi versé na ko ba pare ma bëgg a ànd ak bas Diagne dara waaw yow déggoo li ma la wax la doylu doylu doylu xoolal doylu doylu fi ko fekk ñaa ko doylu moo leen jàpp ñaa ko doylu kese moo leen jàpp boo leen doylu woon loolu yëpp du am affaire nga xam ko yéen yéen a du doxaanat ci naturel lii am ngeen di wax di góondi bu ngeen di dem du ngeen xam lii laa am ngeen doxaane ah, noonu ah, déedéet ah, yéen du ngeen doxaane ci ngeen d'accord moo am xam nga góor yàlla lañu ñëw loolu ma du ngeen ci doxaane gis nga góor ñi léegi gis nga góor ñi léegi dañoo yeewu si loolu jamal góor ñi léegi dañoo yeewu da ngeen di def bu ñëwee xam nga sanca ba mbax war ñu jaw fara yaa ngi dégg ñu ay yéen loolu ngeen di dund yaa ngi dégg tey jii ku ngeen ñëw ne ko lii laa am. gis nga kooku gëm leen ci loolu. déglu ma ko war rek loolu lay jàpp. xam nga loolu lan moo ko waral xam nga loolu lan moo ko waral xam nga loolu lan moo ko waral ñàkk a naturel gis nga doomu aadama da ngay naturel man ni nga ma gisee nii nii laa mel. yow moom bu subaa ni nga may gisee nii. Mhm. ni nga may gisee waat gannaaw suba noonu. du ñëpp moom wax dëgg fa rek yàlla ndax yow xam naa la bu baax waaye nag ñun ak yéen depuis démb la fii ci koñ ngeen di dundee yi ñu bari kon amul leen loo xam ne yéem nañu ci ma feneen ñëpp nag de mais xale jigéenu kër Mbaye ma kenn <laughs> man mënu leen de awatur <laughs> gi koo na la waaw <laughs> non man man li may iPhone yi may yi may dégg yéen a mel noonu ñun li lay doxantoo te xool seen téléphone yu risque ngeen yor te xëyu leen gontu leen ñun dañuy xëy dañuy gont mënuñu suñ ñun suñ mën la seen day gërëm yéen yéen a mel noonu yéen tey da ngeen nekk ak kii tey yéen booy nekk di ngeen ñaanu leen ngeen bokkoo kii moom kii kii moom li mu yor yéen koo leen nekk ñaanu leen ngeen bokkoo ngeen ne carrément am na keneen ku muy ñaan yéen a koy forcé mu ñaan leen kii kër Mbaye Fall am na fi 10 far kii inter lay topp jaam yi non non rek dama naa man eh, man li ma leen wax rek xoolal li ngeen di bañ li ngeen di li ngeen di bañ li ngeen di bañ a dégg moo fi nekk gis nga jigéen ñi yéen seen wàllu bopp dafa am loo xamante ni li ma leen wax modd la léegi si yéen koo leen nekkal am na loo leen di seendu si moom boo leen ko gisatul yéen a ngi si leneen